coordination c'est le Sénégal dans son ensemble qu'il est parvenu à mobiliser. Mobiliser pour sargal le président Macky Sall, qui vous salue, qui vous remercie. sargal nga ku jara sargal ndax liggéey bi nga xam ni def na ko ci senegal sargal nga ku jara sargal ndax téye téye na ko Sénégal mais rafetlu la présence des jeunes et des femmes di leen encouragé di leen président def na ko ñun ñëpp kontaan ci je puis vous dire j'irai encore plus loin ku am ci loo sukkandiku ku am ci loo wute naa koo xamante ni fekkoo fa dara bëgg liggéey moo tax bu ngeen sargalee président dañ ci ànd ak yéen ndax am na lu fi nekk li fi nekk bari na vous avez cité le TER mi ngi nii suñu ginnaaw vous cité le BRT BRT suba suba dinañu commencé essayer moo tax may inviter les population de Dakar suba ba Guédiawaye BRT bi dina dem bu ñu amee loolu de la détermination. On a une jeunesse qui veut travailler. à servir la République wax naa ko ko léegi nee naa ko Souleymane tu un travailleur en tant que tel tu pourras compter sur moi dinañ la jàppale fayal ma ko téyel ma ko je te prends avec moi et Inch'Allah tu vas participer de manière active comme tu le fais maintenant tu vas participer encore davantage à la construction de ce pays merci pour la grande mobilisation double soutien. Je disais, am nañu fondement ba pare moo tax je me comme le président de l'emploi la jeunesse vous que vous veniez de Podor ou de Lomboudou ou de Doué de Dakar ou de Sédhiou l'avenir de ce pays l'avenir de ce pays nous y sommes déjà mais le présent c'est avec vous et ensemble on va construire l'avenir de ce pays merci merci merci merci